un évacué et donc 380 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. ci wolof ma jottali leen euh, li nga xam ne mooy jéggalu